Garga 2 Mama la xam nga xale yooyu combat yooyu ñooy neex yi ah moo tëgg boobu combat. Vox Arena. Vox Arena yooyu mooy combat yi nga xam moom la xale xoolal xoolal li jéen kay rek bëre ak Modou Anta xam nga ni keroog combat boobu rek doyoon na ñu ñibbi ah Ma Lamine. ak Garga 2 ndaanaan la mm-hmm. waaw Mama nag dafa def li traditionnel. te ñoom ñaar ñëpp yaakaar naa ne làmb nañ ci. Mm-hmm. na Garga 2 xam loolu. mu bàyyi ko xel mu bàyyi ko xel. Ama Lamine bëri na lu traditionnel mais Garga 2 nag entraînement la gëm. Mm-hmm. entrainement la gëm te yaakaar naa ni parcelle dinañ topp ci ginnaawam waaye lu ci mën a am rek discipline na ci jiitu. Tyson de Franc. combat la gis naa Tyson 2 moom it na moytu Franc. Ah, de temps yi ah, est-ce que xam nga ne arène nationale ren balaa ñoo bi koor gi dugg si ni quatre tournois yi fa am trois yëpp franc moo ko jël. waaw looloo tax ma ne Tyson 2 benn compétition franc moo ko ko ëpp xale yi nañuy dem di bëri di lu traditionnel nanu bàyyi sol sa blouson di wër mbedd mi naan amoon naa komba amaat naa combat nan di xaar déwén nañuy dem ci lu traditionnel franc booyam yooyu ñu àndal keroog ci làmbi Fatick gi gis naa ci benn xale woo la la xale boobu bëri bi damaa kontaan ci moom xale yu mën a bëree loolu la ñu mëne booy yi nekk ci li li bi nii de nanu dem ñu bëri ji ah général Malick ma gis sax général Malick la bëreel yaakaar naa ne moo daan général ah, est-ce que général la sax. am na xale bu ko daan kera ci làmbi Fallou Ndiaye ji ku ñuy wax Tony bu dëkk Kër Mbir. ah mën lit lit traditionnel. nanu dem bëri gàddu sa blouson wër koñ bi sponsor la ngay wër koñ bi rek di publicité di ja di di <laughs> bi du loolu de. daa mel ni fi mu ne pare ah Franc noto yooyu gisoo Serigne Ndiaye numéro 2 yaram bi dafay man di bëre ndax xale yi man di bëre. ubbali xale yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp Mamadi Mamadi ba léegi mi ngi lu traditionnel te pourtant leen mag Mamadi carrière am dafa gudd. ni muy dundee la xale yi nanu bàyyi maak ma amaa Baldé ñooy ànd ak maak Modou Lo ñooy ànd maay maay deuxième Balla Gaye maay deuxième yooyu amul de demal nga bëri ji dem ci lutte traditionnelle daa bëri xaalis sax waaye dama ne ko ñoom ñëpp ah, léegi ñoom ñëpp am na ni nag am nañu lépp ah, ak i kër ah oto am lépp te lutte traditionnelle lañ ko amee nan dem ñu góor góor lu bëri poids lourd bi des fois nga gagné ko yóbbu un million trois cent wala presque deux millions. mi ngi noonu de man de ma sañoon ñu dem bëri ji de. kon daal Tyson 2 moom tiit da nga koo xaw a tiital ci digganteem ak Franc. mu entraîner. daf fay def carrière dafa toog lu yàgg bëriwul. moo tax ma wax la ko pour pourquoi muy toog lu yàgg bëriwul. Ah, Franc di bëre chaque dimanche yow nga toog doo bëre mu gën laa fen di bëre. di am expérience sac dimanche yow nga toog di xaar grand combat boo bëree arène nationale. ba mu ca bëree mooy combat ba mu est-ce que daanu wut ci woon sax. góor a soog non moom moom lañ mujjoon jox ndam. mujj jox recours ko mais bu bëggee toog Pikine googu rek ah boo entraîné boo entraîné entraîné entraîné bi amoo compétition mais baaxul c'est vrai que yaa ngi entraîné mais amoo compétition Franc da leen di ëpp compétition boo yi nekk lutte traditionnelle léegi ñoom ñëpp ñooy mujj moom làmb ji. Ah, dama ah rëg-rëg wane na ko te Franc ngi ñëw keneen ñëw keneen ñëw ñoom ñëpp nan dem bu ma doon ñoom nan dem ñu jàng Serigne Ndiaye ngi fi te ñoom ñëpp xamul lu leen di manqué box bi te buñ jàngee dóor mën na noo bëre bi pare te léegi ñu ngi xeex a ah, ah, léegi ñu ngi xeex. doole gi ñu yor nag peer na la ko yàlla nëbb man mi leen di jege wallaay ku la ci romb day xeeñ doole. waaw no danoo parce que danoo entraîné rek danoo entraîné danoo entraîné nit daal day entraîné boo bëggee doon champion. da nga gis ku jóge ci tournoi bi léegi dix heures ci guddi mu jeex mu jëlaat otoom demaat ci beneen tournois ci guddi gi. ci guddi gi nga dem ndaayaan boo jógee fa def joof yoor boo fa jógee fu ne ngay dem am na boo xam ne nee nañ deux heures du matin lay commencé. waaw day am nga dem bëri ji. waaw loolu lu ko dàq. nga jël bii jël bee boo boo ñaar bu doonee bu ne 2 millions amoo 4 ci guddi gi. ah waaw. am xale bu ñuy wax duut saane. même boo gañewul xaalis sax gañe nga expérience. bu la yóbbu sax nga daan ñaari yoon ñu daan la. jàng nga. noonu noonu la daane dootu noonu la ni daane. mais nga toog fii rek Iba Mar fële arène nationale ak Iba Mar nga koy teg sol sa blouson boo ah, boo àndee mbër ñu jox leen ni nga sol ko bu subaa. bu journal si jege nga puus. nga puus ko ay puusal di njaab. mais père ba tey foofu dinaa la fi laaj parce que lutte simple bi dama gis amateuru simple yi ak amateuru lutte avec frappe bi dafa mel dafa am différence. parce que violence bi nga gis kër arène nationale dam mi siis lutte simple doo ko fa gis des fois sax doo am policier te problème du jib coow du am. ñooñu dañoo yaru. éducation éducation yi duñ bari ngeen wàll gi ay séeréer lañu. dañoo jóge ci àll ba ñu yar leen. ñëw dugg fii di liggéey. bu demancé ñu dem làmb waxtaane làmb rek lañu xam. ñooñu ba ñooñu bokk na booy yi nga xamante ni yaa ngi dëkk fii ah. xëyu xëyu wàccu euh, boolu dof bi ngay xaar son xooslu nanguwoo jaay gerte nanguwoo liggéey nanguwoo def dara ah bu sa mbër di bëri nga ànd ak moom boo demee aaren kaaren rek nga yéeg sa yoon newu ci bu bat mun paree nga jaay wane fas ak reewande loolu la rek du benn du benn ñii bokkunu genn wa écoute booy tëgg lit lit traditionnel tëgg ko dimanche ah que ñoo ñëpp dañuy liggéey ñii ñu ngi ci garage ñii ñu ngi ci atelier yi ñii ñu ngi ci jaay bi ah. ñooñu la ñooñu ngay romb noonu ñooñu ñooy ñoom la mm-hmm. ñu ngi déglu ñii ñu lañu mm-hmm. ñooñu ñooy dem bu demassé loisir féexal seen xol mm-hmm. ñeen bu ñu jigéen ñi ay bon lañu genn wàll gi ñu ngi ci kër yi di liggéey bu demassé dem toog féexal seen xol ah nag seen cosaan seen xol sedd waaye waaye waaye booy yi nga xamante ni fii la ñu toog nu wàccunu ñenn ñi da ngay waaru mooy loolu boo demee ca làmb ju doon sa mën nga boole ko xol bu jeex te xamoo ndax boo demee di nga reeram doo reer yooyu yëpp bokk nekk ci sa bopp moralement doo dof nga damm sees yi léegi nag bu sa mbër ñëwatul bëri dootoo damm sees waaw buñ ko ajee dootoo damm sees boo ñëwee ci signature contrat ba yàq ko bu nu ajee sa mbër dootoo fa demati. ndax lit simple da am na arène nationale ren ñeenti yoon te sees dammu fa. sees dammu fa. lutte far avec frappe rek. fan sa club. ñoo ko dam c'est tout. gaal gi dangay gis ku ñëw fay billet 5000 mu jaral ko mu toog ci dër bi ci suuf si. waaw waaw te yorab xaalis de gaare otoom. ah mais bien sûr. ay ay kilifa. ay waaw ay lit simple. mais yow ñi eh, <laughs> ngay gis nii ci lii teg dem naa ga euh, jaxaaw Basiirou Ndiaye douanier moo fa amoon benn xew-xew sëñ Moussa Nawel moo ko ganesi woon ma daje fa ay ay jeunes. ñu présenté man leen ñi ay avocat lañu ñi ay douanier ñi ay nangam nangam boo leen gisee ñu ngi simple mais ñu ngi yàkkamte añ bi pour ñëw i Mar Diop làmb man leen lu ngeen fu ngeen mun ma père yow doo dem ñu ñu ngi dema ah. kay ñu booy leen di naa dinaa leen dinaa ñëw pourtant man ñëw naa ca làmb jooja mais ma xool ñooñu ni nu mel ci làmb ak kilifa lanu te ñooñu ñooy mooy ñi ngay wax ñooy dem sol seen jiin ñëw toog ci suuf te fekk na avocat la wala kii juge la ah wala alkaati la wala douanier la yow loo ko dara hmm, moom mu toog mais xam nga lu tax parce que dafa bëgg cosaanam hmm. loolu dafa bëgg cosaanam ci loolu la ñëw waaw ci loolu la ñëw daal père kontaan naa ci yow loo ñuy dolli ndax ñun faw ñu laaj la loo ñuy dool li ci Equivox TV ak suñu liggéey tamit parce que ñun comme ni ma koy waxee rek jotewuñu la ay fleur dañu nekk ay xale di la gis ngay liggéey nga di ñu inspiré ci li ngay def li ñuy def tey am nañ ci benn inspiration boo xam ne duñ la ko nëbb dañ koy wax si micro yi ci yow lañ ko jëlee yaa ngi dégg te itam gis nañ ne mu ñuy jural njariñ loo ñuy dolli en tant que sa doom sa frère sa jarbaat et tamit looy dolli groupe Equivox TV. booy danga may jéem a sànni ay fleur waaye du yéen rek ah ñu jël fii bari nañ de. Ah. man waaw ñoo ñi ñi ñi jël bari na de xanaa yow. man du ma rusa wax ne ci laa jëlee dama lu ma jël ci yow du ma ko rusa wax. même sa grand yi sax ci la ñu jël waaye <laughs> mais affaire bi yaatu na. ñëpp xañ nañ ci. li ma leen di yëgal daal. mooy rek góorgóorlu jéem a xool lu leen di yokk lu yokk développement sportif lu yokk làmb lu yokk dëgg dëgg nag fu la fekk na ko wax. bu ci seet kenn del wax dëgg dëgg mooy affaire bi man daal bu ma naree nekk ci làmb ji te duma wax dëgg walla ci réew mii te duma gis dëgg wax ko bu yow ma xam ne man pare naa bu ma toogee bay am dara lu may ragal ci wax kon ma xam ne man kon ba moo moment boobu kon noppi jot na waaw bu dëgg jotee mm. wax ko waaye nag dafa am nu nuy waxe waxin ma gis nga lu ne mën nga koo wax doomu aadama amul lu mënta wax nit amul lu mënta wax nit mais waxin waa moo am solo nan koy waxit nañu am teggin am sutura taxam xam ne suñu réew mi réewu sutura la réewu teggin la réewu bëgg sa réew la ñu jàpp suñu réew réewu dëpp réew mi fi ñu toll ñëpp nu seen russe yaa ngi fi américain yaa ngi fi chinois yaa ngi fi français yi canadien yi ñëpp a ngi fi lu tax danoo am pétrole xam nga Ablaye Wade daana wax naan bëgguma pétrole bëgguma ja bëgguma gaz te boobu Ablaye Wade bi mu fi nekk xam na ni gaz baa ngi fi pétrole baa mais nee na day yàq réew fi ñu toll ñëpp nu siin te fi ñu toll nii li wër sunu sous région bi yëpp a tàkk Mali gis nga ni mel Mauritanie gaa yaa nga fa Gambie bu yàgg bu bu yàggul la ko CEDEAO defar avec le président Macky Sall Guinée Bissau la même chose sunu suu région bi gis nga Côte d'Ivoire bi fa gars yi duggee terroriste yi sunu sous région bi dafa jafe nanu jàppalante nanu jàpp sunu réew nanu bañ a caaxaan bu nu tasee ñooñu dinañ dugg sunu réew ku nekk am koo far russe bi farak Khalifa Sall américain bi dem farak Idriss Seck français ba farak Sonko Macky Sall farak allemand ba loolu moo indi xeex yi am ci réew mi ci àdduna bi nanu arrêté loolu nanu ñëpp nanu xool lan mooy njëriñu Sénégal parce que gars yi loolu moo indi réew yu bëri kalaate ku nekk da ngay gis sa intérêt parce que pétrole am na pétrole dafa ànd ak seytaane pétrole dafa ànd ak xeex ànd ak xuloo ànd ak yëfi jënne la musiba bala nan ko dinañ ci def nang yoruñu pétrole waaye yor na nu dàq pétrole tukulóor nga ma doon joolaa ñu doon ay kal bëggante séeréer nga ma doon tukulóor ñu doon ay kal bëggante lu mu neex wax la yow mbuub nga sant ma sant mbay lu ma neex ma yekk la ko am na ñaseen yaa ngi nii dooni sëriñ bu ma neexee léegi mbay laa sant lu ma neex ma yekk leen ko coow du jib doon kalis ñi sant si lu leen neex ñu wax leen ko te coow du loolu moo dàq or cousinage bi am suñu biir jàmm jooju moo dàq pétrole moo dàq or ci jàmm jooju loolu woon mën na noo am po or ak petrol te duñu am loolu moo tax bu nan bàyyi waxu ethnie dafa am nu mag ñi moo ñi réew mi na nu jàpp ci réew mi te bañ koo caaxaane lu nu par par par par parloo parloo politique nanu Sénégal gënal parti yi nan réew mi gën parti politique yi na la réew mi gënal li nuy wax la patrie avant le parti ah na doon dëgg na doon dëgg ñu jàpp ci ñun ñëpp nag nañ jàpp ci senegal kooku amul parti amul mbootaay amul kii que ce bu nu seetaanee rek événement yi fi passé rek war na noo xam ne affaire bi ndekete c'est fragile bu nu nax suñu bopp na nu bëggante te lu waay di def na nga ci jiital intérêt Sénégal boo ci jiitalee sa intérêt personnel rek di nga am problème man daal loolu laa leen di wax di leen ñaanal di ñaanal média yëpp nag waaw di ñaan nag tàllal sama loxo encore une fois le Sénégal Bantamba TV la ñu nekk ñëw ngeen fi fii la ñu ngi ñaan senegal ñu jàppale nu ñëpp mënuñu noo jàppale waaye ñu nu mën a jàppale. ñu jàppale nu ñu avancer ndaxte ñun Sénégal la ñu bu soobee yàlla. kontaan ci kontaan naa ci yow Equivox encore une fois maa ngi leen remercier di leen encourager sa caméraman bi xarkatu matt bu mag la gisuma ko woon feneen. Ah. amul woon feneen fu mu ne yéen ñëpp a yem. fu ne ngeen di ne. demoon <laughs> nga walf kat naa la <laughs> fi booy booy man fen rek man li may déplacé wu bariwul. Ah, waaw kon kay matt yi fi mu ne est-ce que du gars yi yori nga ju. yow fu ne ngay tugg yow <laughs> yow amagum nga diis kër. man man man man Leewtoo TV Leewtoo Equivox laa jóge nii dégg mën a jóge maa ngi Equivox. waaw baax na yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. ah tudd nga wal fajiri Cheikh Tidiane yàlla na ko yàlla jàppale sama jarbaat la sama doom la sama xarit la waaw dama ko yéene mu réussir Cheikh non parce que damaa fekkee damaa nag moom màkk maay tey loxo bi ah, <laughs> fu ne ñu fay dugg te ba xam baayam ndeysaan oh am na ay événement yu am ma xalaat ay waay Sidi Lamine waay manqué na fi ah, mais adduna noonu la Cheikh du courage góorgóorlu rek ñun ñëpp ñu tous les anciens de Walf ñu ngi sa ginaaw jàmm rek la néeg maa ngi la yëgal benn problème encore nga xam ko tey ku mu sa liggéey Walfadjri da ngaa bëgg Walfadjri ci sa xol ku fa mu sa liggéey ah, demal ci ku sa liggéey Walfadjri da koy bëgg ci xolam waaw surtout ñun sunu génération ñun ah non sunu génération dootul amati ji àddina <laughs> jërëjëf jërëjëf